moo tax bu mu ñëwee ba dem lii nii lañ ko fi mën a wax bëriwul. ngeen jël loolu. mais euh, professeur. man professeur laa koy woowee sax ndax xam-xam bee bëri. Pape Makhtar xaaral ma ñëw que parenthèse la rek après ñu continuer waat débat bi. parce que loolu dafa soxal tamit ah, euh, jigéen yi ñun ñëpp. Papa da nga wax tout à waxu faux ongles ak ak greffage mën nañ ci jàpp ne que euh, dara dara graawu ci. lan ci. Hmm? ni koy tegee ak faux ongles yeeg yooyu. yokku taar la rek amaana. ah loolu lañ ci mën a wax de parce que lépp loo xam ne mënoon na yàlla araamal na ko place sàngam hmm. ah te eh, nit bëgg ko ci ci soxnaam ah kooku day ko ko bonal yaa ngi bëgg a bon yow ci sa bopp boppi neen boppi neen ci jigéen nag boppi neen ci jigéen nag ñàkk muuru yow da nga sous-entendre ne muuru bi dafa war waaw waaw foofu xëy na yaa ma sous-entendre ko parce que loolu moom dama ko loolu moom dama ko gis ci alxuraan moo tax jànguma ko non ah. loolu gisoo ko ci alxuraan du obligation loolu gisoo ko ci biir hmm? jigéen muuru professeur loolu la bëgg laajte jigéen muuru kon du obligation ah papa su fekkee ne yow xanaa xamu ne yow lii kawar gi ñuy seen hmm. bu dee da nga koo tegoo xanaa xamu ne muuraay la ah loolu sa interprétation la déedéet déedéet déedéet <laughs> man du ma interprété man damay wax le texte. Ah, ah. Ah, waaw na texte ñëw. c'est que kawar mooy li génnee ci biir yaram wi waaw lii li nga xam ne moom moo jógee ci ci der bi génn boobu mooy kawar li nga teg ak lu mu mën a doon ak lu mu mën a doon muuraay la maanaam muur na sa bopp même bu nekkee karaw nit la mais mais man dama bëgg delluwaat ci mbas. puy tout à l'heure dafa amoon question puy puy dafa amoon question bi nga paree rek puy dafa am question xaaral ma jël puy puy vas-y waaw man dafa am leen rek loo xam ne moo ma xaw a jaaxal ci wax ji ma xawoon rek lu paradoxal parce que léegi tantôt joxe na fi exemple que boo demee Léona Niassène maanaam ñoom ñoom ñu ngi julli dañ dem ba ci gouverneur dem si préfet waxtaan ak ñoom ñu jox leen ay charte na ne buñ ko respecté rek mën nañ leen bàyyi ñoom ñu continuer seen julli ñu wax léegi ne tantôt aussi boo demee Touba am na jumaa yu julli Saint-Louis pareil léegi la problème mooy kon Dakar lañ jàpp ne kon autorisation bi dakaar la manqué pourquoi ñu segg yenn dëkk nangul leen ne ñoom am nañ sañ-sañ dem ba ci Medina Gounass aussi dooli ko ci ah Medina Gounass dooli ñu ngi julli waaw waaw exemple laa ñu ngi julli waaw moom laa wax donc pourquoi yenn jàkka yi yenn jumaa yi bu ci am bañ ne ñoom waruñu am benn obligation wala waruñu julli ndax mbas bi la ndax mbooloo la ñuy bañ te pourtant ñu ñu fii ñëpp léegi fi mu nekk nii koo ci dégg ñu naan julli mbooloo lay def li mu wax benn côté aussi ci wàllu la dama ciy ànd ndax ñun bi ñu gën a nekk xale sunu kër yi bu óoru naa fi la jotee suñu pàpp day taxaw laal basan wop ñu jël suñu basan laal ko ñun ñëpp suñu yaay topp suñu ginnaaw ñu jàpp moom mu jiite naa fi liggéey ñu naa fi la kon benn côté dañuy jàpp ne naa fi li nga ci wax ku ne mun nga ko def sa biir kër comme aussi dañuy faral di wax naan ak julli juma waaw falaa jëm dañuy faral di wax tamit ne nit ku nekk sa néegu bopp mooy sab juma hmm. loolu moom kenn wertu ko ndax néeg ba ngay jullee sa néeg ba ngay yeewoo boo xëyee fa ngay jullee fajar bu dee jumaa demoo jumaa ja hmm. jàkk ja fa ngay jullee deux heures bu dee demoo jàkka ja ñun ñëpp daf ñuy daal ku ci nekk dangay ngay yeewu jël sa basaanal ko sa biir néeg uh-huh. julli fa ko néeg ba daanaka da ngay jàpp ni jumaa la mais li ma gën a amal yitte rek mooy pourquoi yenn secteurs yi nga ne ñoom la ñu lim yenn dëkk yi dëkku baayam dëkku maamam ay Medina Gounass et cetera ñu nangul ko ñooñu mënuñu ko nangul waa Ndakaar man loolu rek laa bëggoon xam ah

loolu rek la dafa ñaan ndigal ñu may ko rek ki ñaanul ndigal ñaanul ndigal tax ñaanul ndigal na ñeneen ñi ñaan ndigal boo xam. kon daal ñun waa Dakar war nañoo mën a ñaan ndigal. waaw rek leer na man daal yaakaar naa ne. jàkka wala jumaa ju demoon. jël seeni kii ànd ak seen i chef de quartier dem ca seen maire wala seen euh, lañ bind daal wane ne ñoom.

ceeb beeg diwlin yii ak yi nga xam dañ koy jël ñi nga xamante ni dëkkuñu si dëkk bi damay ñaan président na ko arrêté moom moo ko wax ñëpp dégg am na lu ma ca teg sax te ko. waaw beneen bi na benn libaane bu tudd Sphère lii mu lay wax def ko léegi ci Google ba ñoo pare. Sphère benn libaane la ni dañ koo jox ceebu Yemen jox ko xaalis ba. mu daw ak moom lima kii ko fi fi ne ñu ngi bëgg a jot xaalis bunuñ ko jot te amatuñ ceeb. waaw donc loolu dafay wane ne par exemple ki nga xamante ne jox nañ ko. ceeb laa wax def ko ci sa Google nga xool. waaw déjà donc ki nga xamante dañ ko jox ceeb bi ñu ngi soxla cent mille tonnes te xam naa ne leer na ma ne amaguñu loolu pour jox ko askan bi mais taxaw nga au moins en tant que patriote lancer un appel au chef de l'État que doomu réew mi nañ leen jox marché bi nga ne ko tamit. ci wéeru koor lañ jëm amar Khalifa, xam nga wéeru koor wéeru nu selle lu tax nga demande président de la république à ce que couvre bi mu def 20 heures na ko yóbbu ba 22 heures pour que nit ñi am possibilité am lu ñuy yóbbu seen kër dund am na lu tax jour bi ko waxee ci na Tunisie def dañu lever de 20 heures à 22 heures. waaw Tunisie. waaw donc donc dama la dama wax loolu maintenant ci loolu laa bëgg a taxaw puy julli kër ga tisbaar takkusaan suba bokk ak jumaa puy jumaa puy di nga am jàkk mu nekk sa kër sa koñ te du jumaa jumaa jot nga bàyyi jàkk jooju dem jumaa effectivement mooy farata jumaa man li ma jàpp bu mu wóor mooy lu nekk ci alxuraan obligation la situation exceptionnelle mesure exceptionnelle non non non non alxuraan amul exceptionnel xam nga xam nga da nga xamee ne amul exceptionnel xam nga xam nga da nga xamee ne amul exceptionnel amul exceptionnel parce que yow même boo nekkee sukuraat. nga nekk sukuraat. di nga julli kon nga xam ne amul exceptionnel. leer na uh-huh. donc loolu moo lay wan ne amul. amul exceptionnel. xam nga ah? bu sukuraat doon julli kenn du dee. waaw waaw ne waaw ma ne ma ne loolu da ngay a dee a ma ne la waa ne la waaw moo ma ne la amul exceptionnel moo tax juma.